ciblé secret de l'instruction amul dara lu protéger loolu enquête ñu ne lu dossier kii dossier Ousmane Sonko mi ngi ci presse bi te am na benn presse boo xam ne lépp ñoom ñoo koy bind te dara du leen ci fekk kon Ousmane sonk moom ak son excellence ñi ngi de des réunions secrètes ak ñi ñu concerné ci pale bi nocturne kon jàpp mën a gën am sëñ bi déglu ma maanaam ñii dañu dañ biñ laata ñëw am nañ cible xam nañ fi affaire yi nekk dañu nekk di ko organise di ko togg ba pare nag bu ñu paree maanaam ñoom dañu moo tax si ndaje bi sax feeñ na. ndaje bi réunion nocturne xaaral ndaje bi mais réunion nocturne waxtaan ci ci ëllëgu réew mi ci ñi nga xam ne ñoo luubal alalu réew mi dañu am agenda bu ñuy liggéeyee ñoom ñaar le premier ministre et le président de la république dañu am agenda bu ñuy liggéey ak des hommes de confiance réunion nocturne biir palais am des hommes de confiance parce que am na loo xam ne confiance des hommes de confiance. yow même boo xoolee réforme yi ñuy def jam naajo président dafa rocceeku bàyyi gars yi ñu def seen liggéey dugalu ci loxoom waxu ci defu ci dara bu ñu paree ñu indil ko te noonu ñu ko defee noonu la ñuy bàyyee juste moom boppam xam nga lu ñuy bañ suba ñu jàpp fi beneen baa ñu ne Ousmane Sonko moo ko jàpp suba ñu benn général Kandé ñu affecté ko Inde ñu ne dafa joteex Ousmane général Kandé ban problème la am ak Ousmane Sonko lu mu joteex Ousmane Sonko jotewuñu dara général Kandé mécontaawul ci dem Inde bu amee nañ ma ko génnal ci réseaux sociaux yi ñu bindal ma ko ñu ne ma Ibrahima Sall waxoo dëgg mais ñu téye askan bi yëpp manipuler leen ci presse benn groupe nit général Kandé baa jaxate général Kandé baa jaxate qu'est-ce que cela veut dire te véracité information benn journaliste mënul nekk en mesure teg ci table ji luy wane ne général Kandé déposé na recours cour suprême luy wane ne dafa am problème ak xanaa nit joxe information di ngay indi ay de preuve donc kon Pa am na ñu commencé delloo de sëñ bi delloo am na ñu commencé delloo ci njëkk ak ci teraanga ndax ñooñu dafa si am ñaar ñoo xam ne dañu am ay kër bitim réew dëkk yu mag li leen weer mooy si seen doom yu jigéen dafa am ñeneen ñu ñu bokkal classe seen doom yu jigéen ñoo xamal ñooñu ne leen suñu bàyyi am na fii lii ak lii information bi mu wàccee ci waa gouvernement bi dañu woote solde laajte waa ji li mu am ba pare salaire en tant que ministre ñu ne leen diir bi lu dugg ci gouvernement wu Macky Sall lii la amoon si salaire ñu totaliser ko laaj ko à lii lan nga mës a liggéey mu ne maanaam bi mu laata dugg ci nguur gi année yooyu yëpp da ko chômé daf ko delloo. mu delloo kër yi. ci njëkk li ma la wax du lu may waxantu laa la wax te dans les jours à venir Ousmane Sonko dina def conférence de presse leeral ko am na ñu commencé delloo ci njëkk. ak ci teraanga parce que kër gi bi ñu ko xaymaa alal jooju moom deux ans rek la def ci biir gouvernement bi mais question bi ñu ko laaj dañ ne ko avant ngay dugg ci gouvernement ban fonction nga doon exercer il pene dana wax naa dama doon business ay oto laa doon jënd des fois mu importer li mënu ko justifier ci ay papier dañu woote solde fa ñuy faye ñu ne ko ñaata la waa ji ko ci diir bi mu nekk ñaari at ci nguur gi ñu ne leen waa ji doon na laal cinq millions yu manqué ñu totaliser ko maanaam ci deux ans yooyu jëndul sax genn wàllu kër gi léegi bi ñu ko woowee ñu wax ko ne na indi ay firnde yu koy justifier moom mu xam ne affaire bi bu soree deram day yàqu te mënu ko firnde mais daf ko delloo delloo na ko ñaari kër nangu nañ ko nangoogu nañ tuuti weccit weccit bi bëriwul mais nangu nañ tuuti hmm. am na ñoo xam ne yebal nañ ay nit tàmbali waxtaan yu xóot parce que déggoo li ma la wax lii promesse électorale la xam nga Ousmane Sonko ce n'est pour rien parce que dafa toog lu yàgg waxul sénégalais yi di jiixi jaax hmm. mu génne pour gën a dëggal waxu démbam ak waxu tayam moo tax rek mu def sortie bi pour nit ñi koy seetaan votel ko topp ko gëm ko mu xamal leen ne leen la woon dañu ma ci tey laa ci gën a taxaw tey laa ci gën a dugg ñu sàccoon dinañ delloo alal te loolu mënta nekk tànk mais nan nga koy defee mais si si si si bi ñuy jàpp Karim Wade le procureur Aline Badara à un moment donné dafa amoon problème demoon na ba ñu koy demoon na buñ koy buñ koy atteindre mystiquement ba moom dafa daw làqatu si ministre de la justice Sidiki Kaba ministre bi ne ko nañ dem ci Macky Sall bi ñu demee Macky Sall moo ko jox xaalis procureur Aline Badara Ndao Macky Sall ne ko demal nga uti mystique moom waxal na ko boppam. Ah moom procureur Aline Badara Ndao wax na ne dafay toll woon si enquête bi foo xam ne da doon am ay experts yoo xam ne daf leen soxle woon léegi ndax yow sàcc yu dool ni waa kër Macky Sall bandi ay ay vrai criminels yoo xam ne ci wàllu xaalis luubalkat ñooñu da nga yeewu nii rek. ne da leen di jàpp nii rek si ngelaw te ñii leen di jàpp tàggatuñ leen parewuñu c'est impossible moo tax gis nga ma ne leen na sénégalais yi am patience fii ak juróom benn weer di ngeen gis loo leen mësta gis si réew mi te xoola xaalis bu bëri dina génn kër yu bëri dinañ nga nangu te am na ñoo xam ne déggoo li ma la ñi ngi sax bëgg gis Ousmane Sonko mais comme Ousmane Sonko ñoom problème bi du Bassirou Diomaye Faye am mooy président de am na si ñoo xam ne nee nañ ñoom soxlawuñu gis Bassirou Diomaye Faye ñoom dañ jàpp ne bu ñu gisee Ousmane bu ñu gisoon Bassirou Diomaye Faye sax seen xel du dal par dañ ne Bassirou Diomaye Faye dafa ma yërmande mais ñoom pour seen xel daal foog ñu gis Ousmane Sonko te boobu ba léegi ñi ngi sàkku audience ñu ko gis pour négocier parce que dañ leen jàpp am na si ñoo xam ne seen kër la ñu gas suul fa xaalis bi hmm? man wax naa la fii ne la xam naa nit koo xam ne am na ñetti kër waxuma ko fii ab commissaire dama ne waxuma fii neew amul tool yu mu jox ay neew ma la amul ay tool neew ma la amul ay terrain yoo xam ne tur doomam la si def xanaa loolu moo wax c'est des loolu inventé wu ma ko ma ne la am na ñetti kër ku ma woo man Ibrahima Sall ma ne la kër yee ngi nii ñu woo ko of nag laaj ko fan nga jëlee kër yi terrain yi ñu woo ko of nag laaj ko foo ko jëlee c'est loolu moom la dañu war a defar ay Ousseynou lii maa ngi koy woo ñu defar ay plateforme yoo xam ne du limité ci réforme ak modernisation de la justice mais plateforme la yoo xam ne sénégalais yi dëkk ci gox-goxaat yi loo leen xam loo leen dégg loo leen gis ngeen soupçonné ko bind leen seen message foofu pour yombalal enquêteurs yi seen seen mbir mais à la kulliyaal xaalis dina génne te commencé na génne ay kër nangu nañ ko ay ancien ministre ñi ngi bind audience Ousmane Sonko pour gis ka peut-être nekkagul ci disposition gis leen pour ay négociation Ousmane Sonko sax lool sax bokk na ci li ko rassuré d'abord. Hmm. ba mu génne def cette sortie parce que am na nu mu doon demee du am confiance wala courage yu génn wax ko mais am na lu ko rassurer am na ci lu dëgër lu mu téye moo tax depuis lors il ne s'est pas prononcé sur cette affaire mais léegi ton ferme bi mu ko waxee ton bu ferme la ko waxee di ngeen guxi dinañ bale bale gee ngi nii expliquer histoire bale gi dinañ bale lu salte généraux yi nekk pale xam nga fii bi ma fiy tudd affaire généraux affaire kande bi feeñagul hmm. mais Kandé force spéciale la jiite Kandé dafa jege Macky Sall mais boo boo gañee réew mi koo wóoluwul da koy bale mu jóge fa surtout léegi lan lañ bëgg ñu bàyyi leen fa des na beneen généro ponk lu généraux boo xam ne foog ñu bale ko ci palais bi ku jege président la ku koy gis man maa ko wax man foog ñu balayee leen bale gi foog mu balayee leen ñaari généraux lañ foog ñu balayee leen ñu jógee ñu jóge pale bi maanaam gis nga ñii bu ñu bëggee réussir seen mission Sénégal ay tappale defaru ko de Sénégal il faut beaucoup de courage Sénégal il faut bi ma demee ba si assises yi ma gis magistrat yi jël ko bëgg ko def seen yëfu bopp ma xool son excellence bi mu ñëwee kàddu gu rafet gi mu wax yéene bu rafet bi mu am pour justice changer c'est laa xam ne réew mi courage dëgg dëgg dëgg moo koy defar courage dëgg moo koy defar ak firmeté ak engagement hmm. maanaam du am ay masla du am ay tapale du am sëriñu diw du am kii mooy sama xarit du am kii laa xam du am courage ak fit mooy defar réew te loolu soo nekk excellence Bassirou Diomaye Faye jiit la ku mu matt nga yëg ko maanaam Bassirou Diomaye Faye il est cool je vous le dis hmm. ci forme bi nii rek da nga naan nooy neex la il est cool ci forme bi nii mais ku mu matt di nga dem ut ku la lugal nga lugal xoola moo gën a sever que Ousmane Sonko deux fois li Ousmane Sonko mën a négocier. billaahi wallaahi Bassirou Diomaye Faye mënu ko si bu dee nag ay caaxaan Bassirou Diomaye fay xam nga lu mu bañ injustice daal la bañ nga teg nit loo xam ne da nga ko jaay doole teg ko ko mais maanaam bu la jàpp bu ñu la jàppee ak ay preuve laa la wax nga luubal nga sàcc ay terrain mbuurkat maanaam benn clémence doo ko am yaa a des sapeurs yoo xam ne dañ ñëw gis ma ci ci ci réforme bi ak ay militaire muy sama benn classe Cheikh Ahmadou Bamba dëkk Thiès nekk euh, dem dikk dañu ñëw sa se plaindre près de moi loo xam ne c'est SNHLM Pa Ousmane daf leen ko def te loolu boo fi ñëwaatee dinaa indi élément de preuve ñu def ci émission spéciale ñu bëri affaire mbuurkat bi rek la ñuy wax mm. mais fépp la au Sénégal le problème foncé moo tax ma ne Ousmane Sonko ak le président de la République maanaam courage dëgg dëgg dëgg mooy defar Sénégal te gëm naa ne Sénégal dina jag te am nañu une très belle occasion mm. ñun ñu continuer suñuy effort jàppale leen may leen fit gunge leen pour réew mi jag man nag si laa bokk man du ma joxe bopp di rocce la main man damay soutenir projet bi dama bëgg Ousmane Sonko dama ko gëm loolu gëm Bassirou Diomaye Faye gëm projet bi gëm changement bi gëm ne Sénégal pour mu baax ñun ñëpp war a boole suñuy effort conjugué que au nom des intérêts supérieurs de la nation. ba bale nga. ah bale nañ ba mu set. ah waaye xam nga man loolu. ñun duñu ñu si des ginnaaw saret la ñu looyee ay saret te kenn accompagner wuñu amuñu moyen kenn accompagner wuñu parce que doo ko xaar ci état. dafa am foo xam ne engagement citoyen la d' abord yow nit ki yow bu koñ bu ne dañ cotiser ku ne 200 francs sama koñ ku ne 200 la ku nekk joxe ñiy joxe 300 bon fa lay tey joxe 1000 francs loolu engagement citoyen la lii c' est message fort dëkk bi bu baaxee sëñ bi suñum réew la. Hmm. bu bonee suñum réew la te vraiment salu nañ salué nañ cette démarche bi nga xam ne. président de la république def na ko ci ci ci mbir bi ak soom premier bi te yaakaar nañu ne du yem fii daf dañ koy def périodiquement hmm. bu baax a baax di ñaan tabaski ci Sénégal yëpp am xar waaw amiin ah. koy jaay également hmm. <laughs> ngi yëngatu njaayum xar mi ah njaayum xar mi kañ njaayum xar mi kañ moom la ma ñëpp xame xam nga xam nga nag bu ma jaayul xar du ma lekk ceeb du ma am du ma mën joxe dem man njaayum xar la ma ñëpp xame mooy sama eh. métier njaayum xar ak nag eh. mooy damay jënd ay nag duufal leen jaayaat leen yar ay xar di jaay ñii di ngénteex ñii di anniversaire patriote yi ñëw leen nag ma jaay la nay xar yow ñëwal ma jaay la xar <laughs> am naa